wa ña fa. Euh, démb fan la woon. démb dañu doon ak waa Pastef. Euh, huis clos wala. Euh, non non. gaa ñi teewe nañ. waaw ah, ñëpp ah, parce que nëbbu leen dara. Ah, non non non. nëbbu leen dara comme nëbbu leen dara moom man ngeen ko defee rek ci biti. ñun de xaw ma laa xamul lan mm-hmm. fu leen neex woote. non ñun koy. ñu dëkk ci dëkk ba. amuñ problème boobu. Eh, eh, eh, Ndakaaru di moo am problème boobu. léegi moom wër bi wane na ko. mais pour ñun. yéen moom yéen yéen yàgg ngeen ko wane quoi mais moom non ak dégg olof nee na biñ ko gaj biñ ko teree grand théâtre tere ko ñaari tali daa dem xaar yàlla toog xamoon na yàlla dina ko fekk dina ko fekk xaar yàlla wax nga dëgg nag dégg mu dem xaar fa yàlla toog mu dem xaar fa yàlla toog nit ñi fekk si ko waaw nit ñi fekk ko ba yàlla fekk <laughs> yàlla moom fu nekk ma nga fa yàlla baax na yàlla baax na fu social bi toll ah. ba léegi kan ka joxoon rek mais duñ say laa ko jox waaw am naa ci yaakaar ni ñu ngi toog yi kon baax na. monsieur le maire tey da grand parti de. en ah, grand parti bii <laughs> tey ma béy. yee eh, tey moom da ngaa Alaaji Malick Gakou pire. <laughs> tey kay tey kay da ngaa ñibbi géej waay. <laughs> kon maa ngi bokk géej waay tey. tey moom géej waay nga bokk pire pire. Hmm. waaw yaa nga bokk fan. mais pourtant man maa ngi ci bële bi rek. bële bële bi. fidèle rek. waaw fidélité. maa ngi ci ndikku rek. Coro Sarr maana Coro Sarr ba fa Coro kenn du moom monsieur Tali borom tali yi mi maa la wax loolu wallaay bu ñu infrastructure moom la maa la ko wax bu ko ñemee pire démystifier ko mhm. defar tali dootul safe bilaay wallaay kii kii inauguré ay BD maa ne dara arène nationale ak arène yooyu yëpp dara mm. démystifié léegi. la muy rëdd rëdd na ko ba noppi. oh les sept merveilles nit ñi gis nañ ko fi. ah kay gis nañ fi tali. kenn moom. Blaise Diagne gis nañ ko bi ñu koy rëdd. voyage bi ñu koy rëdd. gars yi di ko tuumal nañ ko ay éléphant blanc. day gas dëkk bi rek dara du génn. te xoolal. walaay lépp a yëpp juddu nañu. a doom yëpp juddu nañu kenn moom. yàlla baax na yàlla baax na sant yàlla rek alhamdulilah ah, seen parti bi nag kaay ma wax la benn affaire de mm. làmb boole na rek na de fu waaw yen waa Grand Parti. lu muy jël li temps moom dafa mel. non fi mu nekk nii kay boo leen góorgóorlu tuuti am dara. fu mu nekk nii maa la wax lii. xeex rek. kon baax na. amul ma dem te ñëw. président Gakou. non xeex dëggal ko rek. non nga ko teg foofu la bu ko teggee. Oh, oh, ma ne. coow li coow leen politique bi ñu gis nii yëpp dara xeex dong. kese moo la koy may. waaw xeex rek. mu bañ a yem ci télé ak rajo yi dong. mukk waaw waaw ak Facebook. Ah. whatsapp. réseaux sociaux yi moom dëgg la dox na waaye baleen rek. amul lu ñu deful ci référendum bi opposition bi ci réseaux sociaux yi amul lu ñu fi monteelul tonton ci élection député ci réseaux sociaux yi ba moom sax ñu ngi wut ndimbal di wax seen mi naan leen dem leen ci réseaux sociaux mais bu naree dara da koy def par force léegi nag est-ce que am nañu taxaw ne ko fii doo ko fi defee loolu la aussi ah ma nekk ko loolu la aussi bañ yegg ca courage la laaj ba yegg ca ma ne ko courage laaj yàlla baax daal suñ combat moom bañ ñu nuyu ñu nuyu Khalifa Sall ah suñu sponsor bi. ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw ah, Khalifa Sall. yéen. ñu ngi koy nuyu bu baax. Bamba Fall sama directeur campagne. ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu. Diop si. ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu bu baax waaye. sponsor yi gi ngeen leen tudd de. bilaay borom fukki penc yeex ñaari. Ajaratu Ngóone Ndoye. Ngóone ñu ngi koy tudd ñu ngi koy nuyu Ajaratu Ayda Njong. Ayda Njong Bafa. Bafa ko delloo xaalisam bi mu salaamee. bilaay walaay surtout tabaski ji sax def koy yitteewoo. ko delloo xaalisam dafa am ay pères de famille yoo xam da leen dimbali. Mhm. dafa am ñoo xam da leen jàppale. dañoo yaakaar ci moom. ak ñoo dañoo yaakaar ci moom. nañ ko ko jox ñu ko daan defee cosaan wu ne. Mhm. ñu ko delloo xaalisam. nañ ko ko jox mooy borom. bilaay walaay président Doudou Wade. président Doudou Wade ñu koy nuyu. père Baye di Sey. ñu koy nuyu waaw. Lalla Aïcha nag yaa ko bëgg a dugal rek waaye amagul doole dugg rek. madame la eh, am na ku ñu waxoon ne dugg na taay passé la. ku duggoon temps yi am na am na ku ku taxawoon yi de. Aïda Mbodj dugg na. Aïda Mbodj waaw dugg na ay Aïda Mbodj la. yee nañ ko ci marche opposition. ñëw na. ci biir sponsor leader. non non noonu la weddee tuuma. xam nga dañu doon oh, laam laam. Oh, Aïda Mbodj du dem. après nag Aïda Mbodj nit dañ koo xam du dem. xalaatu ko sax. Aïda Mbodj di ko kuy dem kuy dem fu sa fax huit ans. ci du dem du dem <laughs> yàlla baax na. du dem. yàlla baax na. waxal ñoom ñu geer moo gën. nañ defandi. ah na jëfand. ah. <laughs> yàlla baax na ay yéen a kaay groupe des la xëy fësal. Ah. <laughs> xam nga ñu bëri dañoo wax naan tonton dafa nay. Hmm. dafa am code. waaw waa APR dañu nay. Hmm. dañu ngoot. moom waaw ñoom ñoom ay seulement la ñuy sol. Hmm. ñoom nguurug nay la ñoom ñoom ñoom ñoom loolu lañ leen bàkkee moom ñoom mooy ñoom ñoom tabewuñ daal. dañoo nay waaw dañoo doon ñoom nay. Ah. loolu la doon loolu mooy seen bàkk. voilà mais tribune yéen a na tonton soppeeku na. Hmm. président Macky Sall instant bi de banque. déedéet waay. ay militant du dugg ah, si boppam. lu leer laa la wax. ca pale ba. maa la wax lii de waa Podor dugg nañu. tey 40 millions. waaw. Medina 40 millions. bii nii waaw. samedi. bële passé waa Matam bi ñu jàllee da lay leer ni génnewuñ fa ak loxo neen tey moo tax journal bi ne gis nga mbir mi bu dekkulee xam nga fan la ñu mujjee hmm. ay milliards balaa élection présidentielle parce que waa Kaolack dinañ ne suñu wàll ci katon ah, waa Pikine laaj waa Kolda laaj waa Ziguinchor mais ñëppay dem laaj ak waa Parcelles te ngay dem leen laaj te ngay dem laaj dem leen laaj de <laughs> koppar baa am na ñoo xam ne de ñemewuñ faa dem beaucoup <laughs> duñ def defuñ résultat am <laughs> defuñu deuxième chance dañoo mobiliser wu. COPACEL bu ñuy mobiliser la. waaw waaw waaw dem leen da ngeen yàgg mobiliser dem leen. dégg nga loolu dégg nga loolu. ah mm-hmm. moom tribune yéene kaay. les témoins yéene kaay ñëw ak mm-hmm. léegi moom la ñu jël soppi ko def ko permanence. waaw ah, loolu nag du yoon nag. président Macky Sall fa lay ay réunion APR instance am. ñu ne déet ñu waay benn bokk yaakaar réunion palais. moo fa xew. palais bi palais Sénégal la nag. non palais bi ci boppam lañ jël léegi daanaka def ko daal marché yëpp sa jëkkër. <laughs> beige marron. eh marché yëpp sa jëkkër pire xam nga yenn marché sérieux yi sax. waaw day am buntu comme ay genre marché Kermel ak yooyu. day am buntu am kii mais palais ba léegi dañ koo jël def ko. lala faa nga daaj. waaw marché yëpp sa jëkkër jottu ko. ndeysaan. le mooy loolu la bind dégg. nii léegi permanence lañ Macky Sall de daanaka nit ñi fàttalikuñu fu mu organiser réunion ci permanence am bi jël pale ba pale ba rek instance yi pale pale ba teew lim doon tere yëpp ñu ngi koy def moo di waaw moom la tribune wax rek mais xam nga boo jëlee askan woo xam ne dañoo xam nga boo jëlee ab askan xiif loo leen maar loo leen gor ku ko teral uh-huh. tër nga ko dootul yëngu téye ko de dëgg loolu de ko de. Mm-hmm. dëgg xam nga ñoo boo jëlee ay nit ñoo xam ne yow añ réer ndekki da leen a të. Mm-hmm. ñetti doomu pend yi. Ah, nga leen di xëyee ay hamburger yu baax ay sawarma. laal cinq mille dix mille. enveloppe bi baax ñu téye. ñoon fi ñu jëm. journal bi ne lañ ko tere yëpp. ñoom léegi ñu koy def. day na direct info ñëwoon ñun ci maître Oumar Youm. ana ja waaye xaadim xaadim borom màggal. xaadim daal. wallaay. wallaay jéem naa force. tur bi rek tur bi rek. jéem naa force ba sonn. tur bee fort tur bee mm. fort. Mm. def daf koo mën. Eh, da leen a jiitu sànni karawaas. Mm-hmm. daal wukki. kenn dootul miim. kenn dootul miim. xam nga wàcc ma daan naa la wóorul ku daan na ma féete kaw féete kaw rek waaye nee ma ki daa féete kaw. fi mu nekk nii. ya yàgg na il kenn du moom nee na kenn du moom. te juróom-benni at juróom-benni at yi ma ki def lu toll ak junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay kilomètres tali la ma ki defar. moo rëdd loolu 1295 te Ablaye Wade. am na fi fukki at ak ñaar. junni ak juróomi téeméer ci kilomètre la def. mètre yu may wax de nee na ñoom kon li ñu def ci tali. Euh. Ablaye def ko ci tali. ndeysaan dañoo dégg daali kon. ñoom waaw kon ñoom mu ne moom mbërëm mi kenn du moom. am na nam ba noppi nee na kay waay Dakar Times ñëw ñun ci ndaje moo xam ne Idrissa Seck digganteem ak maître Alioune Badara Cissé ndekete amoon na daana coon gars yi am rencontre secrète la. ñoom laa wax voilà. Hmm. ay borom bopp ñoo daje de. ah ñu doon de. ay borom bopp ñoo de. problème mu assainissement journal bi nee na juróom-benn fukki milliards yi ñu def pour dix dix villes. mbir hmm. mi na de. Hmm. l'observateur ñëw ak ñun ci El Hadj Amadou Kassé. sama grand frère. moom sama xarit la jiital soleil. waaw jiital soleil woon. ah woon. conseillé nañ koo paase. non yàgg na yow ñaata eh. direct. teeru soleil fi dox. léegi yaa xam la woon ci jamonoy <laughs> léegi yaa xam la léegi xam la. Mm-hmm. dégg nga loolu. kase nee gis nga opposition bi daanoom opposition xam ne day daanoo moom day ñàkk. loolu leer na ma ah, léegi nag ci kekk bi lay daanu wala suuf si. foofu la ñuy négocier fu mu ne. <laughs> ok bu ñu opposition moom instant foofu lay xool. fan lay teg ndoxam. bu ñu yaroo ñu teg leen ci suuf si. bu ñu dëgëree bopp ñu teg leen ci kekk ji. la Balla Gaye waxoon bërëb boo yaroo ma daan la daan la boo fi nekkee di dof doflu nag ma daan la daan ko dof doflu booy opposition bi hmm. askan bi la ñuy préparé seen defet la ñuy dugal ci boppu nit ñi ah ok foofu lañ dégg ma de waaw El Hadj Amadou Kassé ñoo gën a tey gën a xam ne benn fichier électoral doo nga fene hmm. Sud Quotidien ñëw ak ci parrainage bi présidentielle 2019 Mm. région yi foo jëlee ñaari téeméeri signature région bu ne loolooy coow li dégg source a ñëw ñin ci président Bougane Gueye mu ni na fukki poñ ak juróom-ñeent la teg ci taabal ji ne bu yàlla dogalee ñoom waa gëm sa bopp dugg ci biir palais bee ah, fukki poñ ak ñeent député yi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom Bougane nee na quatre-vingts député dootuñu ko weesu quatre-vingts kese lu leer laa la wax mm-hmm. suuf si nga xam ne dañu koy jël di ko caxat waaye directeur généraux yi. <coughs> société nationale ak agence yi ni ñu leen di fale appel ak candidature la koy def. koy def maa wax lii de ñu koy voté assemblée nationale. kenn moom. déggoo ma de. déggoo mooy caaw sax ni ñuy falee ak député. dañ koy xoolal askan wi ñooy fal directement waaye suffrage indirect yi. cim. évidence seen i kaay ñëw ak ñun ci. Bougane Gueye gëm sa bopp mujj naa nekk dëgg de. fu mu nekk nii devenu gëm na ko. Bougane dafa am ñoo xam ne dañ koo mujj ragal sax. Hmm. moo tax maître El Hadj Diouf ne ko gis nga yow sa genre gi. la nit léegi soxla. déggoo ma de. Hmm. Pape Abdoulaye Seck moom mu ngi wër ci tool yi ba léegi ne leen vingt quatre heures ñëw ak ñun. marché ba ci Tilène marché ba doon lakk. Hmm. Ziguinchor. premier ministre ba demoon na de. wax na waaye ña le mer lañ de. moom daal la moo xam ne ci la solo yéene kaay mooy moom PM nee na marché ba yëpp danañu ko defaraat. marché ba yëpp waaw. kon na ko tijjee yéene ne bu dem na marché démb la. ma mhm. ñëw ak ci forage bi ci Yoff APEX ak ak Nord Foire man bu ne forage wala ay robinet medd Ndakaaru mooy dellu cosaan. waaw waaw dégg nekkoon dañ na. <laughs> ci weer yi ñu génne nii waa grand parti nag weer dinañ ko ba tëdd ci suuf nee nañu Macky Sall. Sénégal ay mar moo ko gënal fuuf. Mhm. mu jëlee fi gorom bii di Mansour Faye. Ah. ma de mais goro du caaxaan nag. goro waaw xam nga moo tax gis nga affaire famille kenn waru ko dugal ci état. mukk déggoo ma de. mukk sa doom ministre. sa rak directeur. wala maire wala ministre. sa goro ministre. xam nga directeur du neex a dindi daal du neex dindi. non da même ñi nekk sa biir parti. mais duñ ñemee attaque yow say rak laaj ma lu baay nit ku ko saaga ndey yow la saaga la saaga kay nit koo saaga baay yow la saaga nit koo ko xas yow la xas wala ci la bokk da daal xam naa ni gestion bi daal xam naa ni daal war nañ ko xoolaat ah enquête yéeni kaay ci est-ce xar dina am hmm. dama lay laaj ah jëndaguma de ah nit ñaa ngi ci guddi gu bët setagul de jëndaguma de enquête yéeni kaay ah waay la séeni kaay ñëw ak ñun ci nit ñuy gàttandoo maladie ci hôpitaux yi ak leen di indi doy na de de mhm. Thérèse Sey Diouf nee na Aline Badara Cissé bu bëggee nekk candidat it na làmbi feneen <laughs> Thérèse wax loolu waaw Vox Populi ñëw ak ñun ci Kumba Yàdd mi nga xam ne daa rey bébéem ca Pikine hmm. ah te doy na waar les échos sax nee na fiiraange moo tax mu rey doomam moom doy na waar daal waaye loolu te bi nañ ko yaatal. réew mi quotidien monsieur le maire ci mm-hmm. juróom-ñaar fukk ci ay coup d'état moo am ba ñu amee indépendance ak ci année 90. juróom-ñaar ci daanu Afrique waaw. Mm. loolu doy fukk ay coup ci ay coup d'état Afrique. mais nit ku ñu la bëgg nguur. waaye lii kenn mës na koo gis. juróom-ñaar fukk. <laughs> loolu jarul guddal sax. xaaral ñu continuer les échos ñëw ak ñin si xiif gi xiif gi ma nga ca Podor ak Matam Kanel ak Ranérou ca bët gànnaaru réew boo échos gis nga ko total ngoog jaay na 30 pour cent wa action Petronas la ko jaay jaay na ko na yàlla baax na pétrole bii <laughs> pétrole bii mu le euh, ba mu sotti ba mu sotti monsieur le maire suñu pétrole bii ba mu sotti man de damaa waroon a wut audience. Hmm. kon de léegi foofu la. ci tonton. Hmm. ah dañuy waxtaanee pétrole bi. ñun hmm. suñ koñ dafa am géej. <laughs> pourtant géej yi am na géej. am nañ ci sax offshore yi offshore yi tëngéej am na ci. ah waaw ah, ah, ah, c'est que yow da war a laaj. boori Kaya Kayaar yooyu. yow c'est que yow sa problème ak tonton da ko xaw a rus. <laughs> kii. kee moom. <laughs> Euh. Baye Sall moom moom da koo ñemewul moom. du wax. waaw moom daa ñemewul tonton moom moom nayim ñoo mais yow moom dafa mel ne xaw a ruus quoi. non dama xaw a kii rek. da nga xaw a ragal. du du Ousmane Sonko seeti woon na démb Khalifa Sall. Ah, seet na ko waaw ah, waaw. ah c'est fekk na nit ku jàmbaare. Ah. waaw waaw waaw. koo xam ne caaleetul. gor la. gor la seeti. gar mi la. waaye fi mu lay wax ji rek moo neex. moo di. de góoma de. mu ko daanelee. les prédateurs les prédateurs d'aujourd'hui mmh. finissent toujours proie dégg nga ko de. rëbbkat yi. tan yi kay. prédateur kay bu ko rafetal sax. ñoom mujjee doon ndawal yàlla baax na. baax na yàlla baax na. tan yi ne rek di lekke ka di di di di wax ka lekke. ñoom lañ mujj. <laughs> ñoom lañ mujj lekk nga ne tan yi ne xéem rek. tan yi ne xéem rek euh, taawi seeni la ah. yëkkati seeni we. di xaaral nañ lu ne xéem bañ ne la ci <laughs> yóbbu. sa bokkul ma ñi tës li cam loolu rek tos la. loolu tos la ah. moo. coup d'état moo koy gën di waral. Hmm. am na ñoo xam ni. dañuy toog rek bañ a dem. nooy ci. sa mandat jeex nga mañ ne doo dem lee mandats de trop muy indi coow ci biir dëkk yi les mandats de trop mooy tax la grande demi-heure di génn caserne yi ñëw fekk civil yi seen palay dàq leen kese kese xam xam nga li xewoon Gambie mu jëkk sax ñëpp ko ñaaw la moom taxawaayam waaye ba muy doog am koo xam ne yow ca indépendance yi ba léegi nga toog fa bañ na doo dem askan wi de bu ñu nee déet nag. Ah. dëgg na yàlla fekk si waaw ku ci sa constitution wax na yemal ci ñaar nga taaw jëm ñett. nga dem lijjanti ko. ah ku ñëw ne léegi protéger naa constitution bi ku ñëw wax ko te di ko laalaat ñaata yoon. doy na waay tonton ñaata la ko laal. laal na ko laalaat. te nit ñi foogoon nañ ne constitution ci mim réew. ak lim fi jur kenn dootu ko laal si. 2011 14 morts lim fi jur. Mhm. tous pas ama constitution. ñu doon wax tous pas ama constitution yëpp tey ñu ngi tontoo. déggoo kenn wax ci te tonton ngi yor si soom ñuy touché di touché tabaski bi tonton ñawal na ñëpp. ba wax ni 2012 ba léegi mu mi ngi naan on va prendre des mesures. xanaa ay grand bu ba lay war a doon. loolu ma jaaxal ñetti at. ah li mu fi jël ci ay mesures. waaw waaw chaque année mu jël suñuy mesures. warul nekk après di ko sax grand bu ba. te ba léegi ni leen ñun ñawlooguñ. on va prendre des mesures on va prendre des mesures on va prendre des mesures 2012. ba léegi tonton ngi jëli mesure. ah kon nañ yow jël na sa mesure jël bu saale. nañ dem pale man jël na sama mesure. dama lay gisaguñ yére. nañ dem pale xool ndax ñaw bi pare na. waaye du du ñawal kenn. <laughs> kon baax na tës bi. mi ngi ñawal boppam de. mi ngi ñawal boppam. grand boubou yooyu muy sol par tabaski ki korité de moom. mesure bi mat na sëkk. sëkk ay léegi ci daaw ah. pare sax day ñawaru. <laughs> <laughs> di nga jël nag après demain. <laughs> suba férié la. waaw man ci kanam di calculer xibaar yi. équipe dynamique. Pour